bayiwut fen la lambaaj ko xif rek la am ci koram waye amu ca ben tiyabu ci yalla kon ñu ngi lay sante bu baax di la euh mbokk yi ñu wat set mbokk yi nga xamne ño nek ci euh website bi lan lañu ñu gis nañu fi benen mbokk bo xamne mu ngi tuddu Aysatu cissé Aysatu cissé nee mu nga tok ca Atlanta moom nag lim yónnee ci laajteem mooy lan la lislaam wax ci ki nga xam ne dafa woor xam naa koor gi jàpp na ko mu tëdd bëccëg di nelaw ci biir nelawam yi mu gént mel ni mu ngi sëy ak jëkkëram walla mu ngi sëy jabaram ne ba am lu génn ci moom bu loolu amee lan mooy àtte lislaam ci kooru waa jooju nga xam ne loolu moo ko dal liñ koy wax mooy ki nga xam ne dafa woor ba bëccëg mu gént mel ni day sëy ba am lu génn ci moom kooku dafay continuer kooram googu ndegam ci gént la génne loola du yàq ci kooram dara day continuer weeru kooram boobu te bu weeru koor wi jeexee it bis boobu dootu ko fayati ndax loola yàqul ci kooram dara kon nga tëdd di nelaw nelaw yi sori lool nga gént mel ni yaa ngi jaxasoog sa soxna wala jigéen gént mel ni mu ngi jaxasoog jëkkëram bu yeewoo daal ni muy def dafay dem sangu set dal di continuer kooram xam ne loola yàqul ci kooram dara mbokk mi kon ñu ngi sant mbokk mu mu bu baax di ko gërëm xam naa ñu dem bi rek dellu siwaat incha allah seet lettre yi fi root ci website bi dem soxna yàlla This is the month of goodness. This is the month of giving. This is the month we reflect upon our lives and spell the name of Allah to fill our souls with faith and love with every step we take, with every smile. We are a nation with a bright future that we walk towards. Hand in hand, as one. We are Africa. Ramadan Mubarak. kon mbokk yi fa tabaarakallah comme niñ leen ko waxee ñu seetaat mbokk yi ni seen euh, laajte yi euh, toftaloo ci website bi ñu toppeeku noonu incha allah euh, gis nañu fi beneen mbokk boo xam ne mu ngi tudd nee mu ngi tudd Modou Sow Modou Sow nag mu ngi toog fale ca Jaamani euh, nee na moom li muy laajte mooy lan la lislaam wax ci ki nga xam ne weeru koor dafa ñëw euh, te fekk mu feebar feebar boo xam ne mënu ko boole ak woor weeru koor ki nga xam ne koor dafa ñëw fekk ko ci feebar lan la lislaam di digal kooku liñ koy tontu rekk mooy feebar am na ñaari façon yi feebar yu am am na feebar boo xam ne mën naa dal ab jullit ci biir weeru koor waaye mu nekk feebar boo xam ne yaakaar nañ ak wéram feebar boo xam ne yaakaar nañ ne bu borom fajoo fileeg ay fan feebar bi dina wér kom lu mel ni feebaru malaria bu la dal walla beneen feebar sax façon feebar boobu bu dalee nit ci biir weeru koor borom bu xamee ne su boolee koor gi ak feebar bi dina gën metti su boobaa dafay dog dem ci docteur faju ba wér naan garabam yi ci niñ ko ko waxee faju ba wér su wéree nag fan yooyu nga xam ne moom la dogoon ngir feebar boobu mu konte ñaata fan la daldi koy fay kon feebar bi nga xam ne yaakaar nañ ne dina wér bu la dalee ci weeru koor da dog di lekk di naan di faju su weeru koor wi jeexee nga fay fan yooyu nga bàyyi mu am beneen feebar boo xam ne léegoo mu dal nit waaye kum dal duñ yaakaar ne lii daal luy gaaw wér la xëy na danga nga di dund ak moom rek ba fu soob yàlla waaye daal nekkut loo xam ne day wérati pour delluwaat normal léegoo mën naa nekk feebaru ol sax léegoo mu nekk asma léegoo mu nekk diabétis mun naa nekk beneen feebar waaye bépp feebar bu man di doon mu dal nit nga dem ci docteur bu gëm yàlla bu ragal yàlla mu seet sa feebar bii nala diw nga ne amu ah, ne la yow kat li la jot feebar bi la jot laajul xiif walla laajul mar laajul oor li gën ci yow mooy nga ñàkk or kon loolu ñu la advice jóge ci docteur boobu da nga ko war a sàmm danga ko war a jëfe parce que dëgg la or gi ngay oral yàlla or bi ngay oral yàlla yàlla bëgg na ko lool waaye nag sa wér gi yaram sa life moo gën a yitteel yàlla or bi nga koy oral loolu moo tax mu ne la su ñaar yi dajee mu wóor la ne yaa ngi may jaamoo si wala sant naa la jaamu waaye jaamu ga boo ko namee def ci waxtu wi ma ko santee loraange mën na la caa fekk kon li gën mooy nga faxe góor góorgóorlu noo fanqee loraange boobu ba loolu teggee ko ci sa kaw nga door a ñëw def jaamu gi ma la doon sant. kon ki nga xam ne dafa feebar te feebaram laajul xiif laajul mar laajul oor. te feebar ba kenn xamul kañ lay teggee teggeeku ci moom mook laay fam la ba faw kon kooku li ko lislaam sant mooy na dog bu nit ñi ooree moom bum oor bum lekk bum oor bum xiif nay lekk nay naan comme nim ko daan defee bi foo weeru koor su ko defee lim lim war a uutal lim war a uutalee kooram nag mooy suba su xëyee bu nit ñi ooree moom na natt ci maalo loo xam ne suur na nit mu génnee loolu sarax jox ko ab miskin wala benn faqiir loolu mooy uutu kooram kon maa ngi wax jullit yi nga xam ne koor dafa ñëw fekk ñu amee xeeti feebar yoo xam ne àndul ak or buñ forcé di or nañ dog di lekk di naan di naan seeni garab di faju tey moytu xiif wala ñu moytu mar su ko defee bis bu ne buñ xëyee ñun natt lu suur nit ci maalo sarax ko benn miskin wala benn faqiir loolu mooy uutu seen kor benn waay nee na ma kon xanaa su ma xamee ne weeru koor 29 days la wala 30 days la kon mun naa jël maalo bi rek natt ko benn yoon joxe ko ma ne ko déedéet mun nga koo natt saraxe ko joxe ko te fekk yow yàlla bindul ne da dund da ngaa war a dund ba jeexal weeru koor wi kon su boobaa mu ngi mel ni islaam a ngi lay taksi loo xam ne yaa ngi koy fay te fekk dundaguloo ko moo tax ñu ne la suba soo eewoo mu óor la ne tey fekkee nga ko nga natt bis boobu joxe ko parce que ëllëg xamuloo di nga dund ba ëllëgam ndit su ko defee nga xaarati ba ëllëg bu nit ñi ooree nga xëy natt lu suur nit génnee ko sarax ba keroog weeru kor wi di jeex kon ñi feebar te seen feebar yaakaaruñ mu wér te mënuñ ko booleeg or kon ñoom dañu war di natt sarax di ko génne bis bu ne ba keroog weeru koor yu jeex mag mi nga xam ne dafa màgget ba atam mayatu ko mu oor bu ooree ba ngoon jot mu xëm walla mu daanu di sonal nit ñi kooku it koor daf ko wàcc ay doomam lan lañ war a def mooy suba su nit ñi xëyee oor ñoom ñu nattal seen yaay boobu walla seen baay boobu lu suur nit ci maalo génne ko mu doon sarax loolu mooy uutu kooru seen wéy jur boobu ba keroog weeru kor wi di jeex kon ki nga xam ne dafa oor te feebaram laajul xiif laajul mar te nekkul feebar bu koy bàyyi kon moom dafay dog di lekk di naan suba su ni mu génnee sarax ki nga xam ne nag moom feebar bi ko dal bu fajoo ñaari fan ñett mu wér